الحق المبين من كونه ñoo ngi fii ci waañu Serigne mooduloo Lo Ngaabu ñu gën koo xam ci Serigne Modou Kouro Baye Fallou Ngaabu gaa yi nag euh, ñi ngi fii waa daayira bi daayira yëpp nag teew nañ fi ñoo ngi leen di sant rawatina sun mbokki soxna yi nga xamante ni ñoo ngi jóge Bawal ñoo ngi fii ci suba ba léegi di liggéey liggéey bu rafet ñoom ñoo nekk nii sama yaay yi nga xamante ni bi yaa ngi leen gis nii ci soble si ak euh, affaire yi lépp lu jëm ci liggéey bi rek ci orne bi ak ñi nga xamante ne bii mooy euh, waa duy sangu ñu mel ni ñoom soxna Awa ak euh, ñoom Fallou ñoo ñëpp ñu ngi fi ak Ami ñi nga xamante ni ñoo jiite soxnay daayira bi di def liggéey bu am solo ci wàllum li nga xamante ne bii mooy bés bi bés bi euh, nga xamante ni moo ñu ñor comme ni ko sëñ bi waxe woon rek bu ngeen ko mënta def ci at mi na ngeen koy def chaque semaine bu ngeen ko mënul di ko def chaque weer waaye bu mënta ñàkk ba mënta ñàkk bu mu ñàkk am ci at mi te nee na woon bis bi tamit képp koo xamante ni bii tamit gis nga ci sa bopp maanaam dootoo sóolu ba faaw. di ñaanal sëñ Modou ngaa bu yàlla na fi yàgg te wér ñu yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk loo di kontaan ci bis bi di ñaan yàlla ñu fekke koy ati ati at ndax bisub sëriñ tubaakat ku ne sawar nga ci kuñ ci woo ku ne war ngaa daw ba daan. di sant sëñ Modou Lo ngaabu ni ma ko waxee woon ci commencement bi rek yàlla nañ fi yàgg ñëw loo yàgg ko fee fekk bisub sëriñ tubaab bi yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom yàgg ko ànd di ko màggal ci barkeb baayam barkeb maamam yu baax ya di sant sama moroom yi ma fi fekk ak sama doom yi ak sama mbokki taalibe yi ma fi fekk ndax daayira bi ñu fi fekk kat jar nañoo sant ñoom ay jàmbaar lañ tey nag buñ ñëwee dañ ñuy yaatal man nag sama digg ak euh, sëñ Modou moom du tey démb la booba xaw ma ne danaa ñëw Mbàkke Bawal gi sax sëy si fi waaye nag ki si si mooma boole woon nag moom di soxnaam may sant sëñ Modou di sant sama mbokki taalibe yii ma fi àndal di sant sama dëkkandoo yi ma àndal di leen indi at mu jot at mu jot ma indi leen ñu jàppale si mat ci togg yi maa ngi ñaan daal suñu borom mi nga xam ne moom man yàlla na nu gën a kàttanal ba at mu ne lu ñu fi def rek yàlla nañ fi def déwén lu ko raw bis bu toll nii boo xam ne dañ ne Serigne Touba moo ko moo moo ko tànnaloo ku toll nii sëñ Modou Lo daal la ci woon ne la kaa ñu ànd liggéeyal sëriñ bi kon kooku dalaa dimbale kaa ñu ànd liggéey sëriñ bi moom ku la ko wax rek dalaa dimbale liggéey bi nag depuis boobu ma ne bi bërki démb ba léegi ñoo ngi ci lépp foo lépp loo xam ne nii muy bagage boo xam ne war euh, war nañ ko yittewoo ci bis bi daayere bi def nañ ci itte ba lépp teew na ba ñu ci subaat am nañ yéen a joo xam ne nii xëy na añ bi sax bëggoon mu fekk dix heures lañu waxoon rek pour añ bi yëpp sotti mais nag gars yi ñi ngi ci def seen kem kattan wax dëgg yàlla jàmbaar lañ bu baax soxna yeeg euh, ak daayira daayira mu boo asi daxin Touba duy sangu ci njiital Samba Thiaré euh, ci kër gi euh, jëwrin ji di suñ jëwrin ñun ñëpp muy Serigne Faye Ndiaye daanaka fi lañ fanaan bi ñu xëyee lan ne ca kafe ga ba kafe gi pare ñoo ngi ñoo ngi ci añ bi te bu añ bi pare incha allah dañuy dem ci reer yi kon daal yëf yi amul lu dul sant ngërëm rek te cant gi lu dul moom ñun dañoo war a sant sëñ Moodu mi nga xam ne liggéey sëriñ Touba yomb na waaye sëñ Touba liggéey loolu moo jafe te jàpp naa ne ñun sëñ Touba dañu liggéey loo tey ndax bis bi bisu sëñ Touba la kon buñ la ci woo bu la sëñ Moodu wooye ne bis bi bu baaxee yéen la su yàqoo yéen la kon am nañ sasu rëy kon lépp loo xam ne nii mën nañ ko ci nañ ko ci def ba jéem luñ mënul li suñu ñu bàyyi suñu borom ndax doomu aadama moom li mu mën rek lay def li des ñu bàyyi yàlla kon nag sëñ bi liggéey bi moom li ñu si ci mën a gàttal li ñu ci mën comme ni ko mën a gàttalee mooy suba ba léegi daal lépp lu ñu xam ne ne dana jagal bis bi ñoo ngi ci suñu kem kàttan lépp loo nga xam ne nag lu safaanoog bis bi la ñoo ngi koy moytu doomu aadama nag moo matadi waaye nag yàlla ñu suñu borom teel liggéey bi ba ni ñu ko ni ko borom liggéey bi bëggee ñu defalee ko noonu ndax xam naa ni ñu ko bëggee sax mënuñu ko waaye dinañ ko jëm suñu kem kàttan Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne sa ak sa sant di leen siyaare bu baax leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Mouhamadou Lo Baye ndax lu jiin njaag te moom mooy njaag ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom mu defal ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér di nuyu nag mbooleem ku ñëw ci bis bi rek di la siyaare di rafetlu teewaay bi lool di ñaan nii ñu ko mane ak nii ñu fi teewe dewe eh, ren bu déwénee yàlla nañ ko fi dajeewaat ci barki Sëñ Fallu di nuyu soxna Nday Jeng ak ñi mu àndal ñëpp di leen siyaare di rafetlu seen taxawaay ndax soxna Ndeye Dieng li ci sëñ bi wax léegi rek loolu laay firndeel ndax dafa ñëw ci kër gi te ñun bi mu tàbbee ci kër gi ak léegi ñu seetlu ko mu xam ne ci këru Baye Fall la dugg mu fiy doxe doxinu Baye Fall nag ànd kook ñun ànd bu rafet bañ na ko ba su màggal gi jub sas yi ñun bala ñu ko koo soññi moo ñuy njëkk a ne ma sas wi fu mu toll woon ma yónnee la sama ko sas du xaar sax ku ko soññi loolu Baye Fall dëgg moo koy def dañoo fekk nag ñu ànd ak sëñ Modou sëñ moodu di dox doxinu Baye Fall ba tudde boppam sëñ Modou kuraloo baay Baye waaye dafa ñëw ànd ci Baye Fall gi ba ñun des na tuuti sax dañuy gën a dëggu ci baay Fall gi teraanga yi mu fi indi nag doonul ne tey dong ko fi indi du ne màggal gu jot da koy defee nii ànd ak ñi muy àndal ñëw indi ko boole ko ak ànd ak ñun màggal gi ba màggal gi jeex ñu koy ñaanal suñu borom dëgëral ko defal ko fan wu gudd ak wér xéewal yu ne gàññ ba lu mu fi indi ren bu déwénee mu man fee indi ko ëpp fuuf ñu ngi nuyu ñëpp nag di leen siyaare dañoo mënewul wax rek waaye kontaan nañ torop yàlla suñ borom yàggal taxawaay yaa